ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf magistrature gi yëngu na yëngal yéenekaay yi ba ñuy xëy di yëngu l'observateur nañu li yëngal magistrature réew mi démb la ko yëngal ginnaaw ndajem conseil supérieur de la magistrature gi ñu doon def ca palais de la république mu doonoon ci teewaayu président de la république Macky Sall ca dogal yi fu juddoo bokk na ci ne Mamadou Badio Camara man ne woon premier président bu cour suprême nekkatu ko dem na retraite ku ñu di mag ci Abdou nga léegi ca palais ba ca wetu Macky Sall procureur général ba ne woon ca cour d'appelum Ndar di Ali Ly moo ko wut Henri Grégoire Diop ñu yóbbu ko ca ministère affaires étrangères ca wetu Amadou Ba Moustapha Seck ak Samba Ndiaye Seck ñu fi doon jaaba jonge fan ji la ñu génn ndax wax ju ñu waxoon ca session comité des droits de l'homme bu Nations Unies jëmale ko woon ci mbiri Karim Wade taxoon ñu tëbal leen ñoom ñaar ñëpp dalaat nañu ci ñëwaat nañu juge Ibrahima Ndoye mi daane loon Cheikh Béthio Thioune ca kees l'Observateur nee nañu moom it sa jóge la ñu def avocat général quotidien nañu Macky Sall yëngal gësa magistrature bi ba fu ne aw xob fare fa Badio Camara tëb na Cheikh Tidiane Koulibaly toog na Ziz Demba Kandji moom it jóge na ci cour d'appelum Dakar dem gaare ji ca garage bu présidence de la République Sud Quotidien nañu ak salfaañoo gu rëy la nimmiku ci biir magistrature réew mi loolee ginnaaw ndajam conseil supérieur de la magistrature gi ñu doon def Cheikh Tidiane Koulibaly moo jiite léegi cour suprême Demba Kandji teere ji palais gis ne démb ay roppeeki roof yu rëy ñoo am ci biir magistrature bi ñu xëy jàng ci xët mu njëkku la Sénégal yi ñu mën a jàngee ci coppite yu rëy yooyee ñu nemmeeku ci biir magistrature bi benn ca moo di bi gis na ne tribunal grande instance yi ak cour d'appel ñoom la ñu gën a lëbëje ci dogal yi ginnaaw magistrat yi nañu wax ci avocat yi maître Demba Ciré Bathily maître Aladji Diouf maître Assane Dioma Ndiaye maître Baboucar Cissé maître Ali Fall ak maître Seyni Ndione Les Échos ne ñoom ñëpp ay avocat lañu yoo xam ne l'homme des affaires bii di Abdoulaye Sylla moo leen jël ngir ñu défendre ko songu gi ñu koy song ak tooñ gi ñu koy tooñ ak ŋàññi gi ñu koy ŋàññi moo waral moom Abdoulaye Sylla mu ne a jëli avocat ngir ñu toppal ko yëf ci yoon kenn ci avocat di maître El Hadji Diouf ni ci mu njëkku Les Échos Abdoulaye Sylla du dara lu dul ab patriote buy taxaw di xeex ngir développement réewum mètre carré bi gën a néew mësi su ko ko may ci réew mi lu mu am aw ñaqama ko may li ñuy def nag mu di appel d'offre bu ñu teg mu gàñe ko bàyyi concurrence bi ñu toog ni xotti xool loolee mooy ñurum ñurum mais xolu ñenn ñi ba tax ñu di ko xeex maître Demba Ciré Bathily ne ci journal Les Échos waa Descos yi toj kër Abdoulaye Sylla gi li ñu def moo di jaay doole yàq alalu jàmbur ak violation de domicile maître Seyni Ndior na tegal ñu ci ne Abdoulaye Sylla miir bu mu tabax ngir clôturer këram ay baies vitrées yu mu def ca këram garage bu mu fa def ngir wataam ak i toilette extérieure yu mu def ca kër ga loole la ñu koy toppee ba tax ñu toj këram kër gi la maison toj na journal ko nañu moo di club des investisseurs sénégalais ubbil yéenekaay bi kuréel gaa ngay gën di tas ci nekkoon tey bàyyi ñoo ngi gën di bari ne Madiambal Diagne ak Khadim Kebe moom Ndiouga Kebe borom Focus SA ñoom it démissionné nañu ci club des investisseurs sénégalais coowal foo li lëmbe réew mi jamono ji anki dina kay moom la xëy xëy di gëstu ci xewit woowee ak li mu mën a journée loraange ci koom-koomu réew mi Basirou Bey dib économiste ne waa anki dina kay mbiri foo bi yooyee sàggane ko ñàkkoo lijjanti moo di toog di seetaan réew mi di suux Vox Populi nañoo ñaari homme politique yi ñu tudd ci yëf yi di ruumandaat naan seen loxo da ca laale mu di Pape Diop ak Farba Senghor weddi nañu tuumaye ba mu set wecc